ni mu demee woon mooy nit ki man na ko bu ko neexee def ko moo gën waaye bu ko soobee it mu bañ a woor te joxe aw ñam mu remplacer ko jox ko ay miskin yu ajo woo noonu la deme woon ginnaaw bi nag la dem ba mu soob suñu borom mu xëy xëy indi aaya daal di wax nag ne weeru koor wi mooy weer wi nga xam ne cire la su borom wàcc alxuraan wax a wax lam ca wax ba daaneel daal nag képp ku ko fekkeeti na ko war foofu la la wax ju doge nag doon wax ju jeex joo xam ne amutul lam-lamee képp ku fi weer wi fekk nga di jullit man man ko dangay wor boo wóorul rek yarub suñu borom dal ci kaw yan ca la kon loolu mooy fi mu jaar bi mu xasee ñëw ñëwee noonu jeex na anam yañ daan woore bu njëkk ku ko wooree te doo daje ngërëmul yàlla yàlla du gërëm li nga def ak yeneen ak yeneen yu bari noonu la mel ba ca aj màkk mi ñuy def lu fi jiitu la avant yonente bi alei waaye bi ñëwee sharia bi yonente bi alei salatu salaam dañ koo yeesalaat am defin yi nuñ ko wëlbateewaat ba mu tëdd nii mu tëdd tey yi ñu bàyyi noonu la mel yi ñu bàyyi yitam noonu la mel am na ci yooyu am na ci yooyu ci diine yi jiitu woon manoon naa bañ a doon luñ luñ tere waaye biñ demee ba diine yonent bi aleyhi salaam ñëw suñu borom daf koo tare bi mu koy tare it jaaral ak fa mu ko jaaral ba mu yegg fa mu yegg buñ ci doon misaal mën na sa jël misaal sàngara bi yonent bi aleyhi ñëwee nekk nañ fi ab diir sàngara aramut ku ko bëgg naan naan te dara du fekk bi mu demee ba dem Madina bi ko suñ borom di tàmbali tere da koo jaarale ci ay jaaruwaay xëyut xëy rek ne bàyyi leen sàngara mu jeex waaye da koo jaarale ci ay jaaruwaay ca nam ko soobee tàmbali di ko def ay ju di def ay junj ay junj la njëkk a tàmbali junj yoo xam ne day mel da ciy wane lu baax ak lu gën a baax da ci yàgg mu ñëw wane ne kat bu leen jegeeti julli te fekk yéen a ngi mànde maanaam julli juróom yi ni tëddee gannaaw bi mu wàccee mu ne léegi bu leen julleeti te fekk dara ci màndee ngi seen biir kuy julleeti moom na fekk nga ànd ak xel mot sëkk moom dara ci màndeeg jeexiti man nekkul ci yow loolu mooy doon digal li léegi loolu xam nga xaw naa doon jafe-jafe tuuti ndax waxtu julli yi moom dañoo xaw a jege so réewuñ lool mande fi xiq fi ci yenn waxtu yi moom xëju fi daanaka kon diggante gee ak fajar xanaa xaj na wala fajar ak tisbaar xaj na waaye yi ci des moom seen diggante xat na xataay goo xam ne xaju fi fu fi nit ki mandee moom balaa waxtu wa ca di ñëw du fi mën a ànd ak xelam ak sagoom du fi xaj léegi mu tàmbalee indi jafe-jafe waaye loolu lépp lu xereñ la ndax mi ngi leen di tàmbalee tàmmal bàyyi ndax kii ko daan naan waxtu wu nekk nga xam ne amu ko amulu ko waxtu léegi tàmbal naa xam na ne am na waxtu yu mu ko mënatut a naan ndax julli tax léegi ko ñaari waxtu dong la ko mën a naan fi ne ci bis bi julli gee ba noppi naan wala julli soo ba noppi daal di naan fa saasa bu yeexee tudd dootu ko man bañ ñekk ca noonu ba tàmbali koo tàmmu situation yi tàmbalee changé aada yeeg li nit ñi mi noon suñ borom xëy xëy wàcc alxuraan daan ne nag sobe la na ko ñëpp baax bu ko kenn defati tere naa ko léegi tere la gu dog sëkk kenn dootu ko laal loolu nag doon atte bu mujj bi nga xam ne foofa la mujj yam jeex na amul lu ñu wëlbateeti ba adduna tukki atte booba la yor lu lu lu lu mat a bàyyi xel la nag ndax ñoo ngi dégg léegi ci xeeti xalaat yu bees yi dugg ci réew mi xam nga gannaaw réew moom réew la moo xam ne mi ngi noonu rek xalaat yëpp dañ koy jéggaane di ko fendi waxtu wane ñu ngi importé xalaat di ko fendi ak i pas-pas ak gëm-gëm gis nañ fi ay nit nit koo xam ne mi ngi def ay waxtaan ci ay seen YouTube di wax ay xalaat yoo xam ne yu mel nii ci la bokk di wane ne sàngara aramut wax na yeneen yu ko jiitu mi ngi wax yeneen yu ca topp yooyu nag liñ daan wax toujours rek lañ ciy wax Sénégal dafa am nattub daa bëgg lu bees loolu moom nattoom la roy daf ko neex ak ak lu ñutu lu bees daf koo neex loo tey it kum dégg ngay wax yenn yu rëy yi itam bees ci moom rek day jàpp ne loola xam-xam daal la bu xóot xaj na ñetti des dañ koo xamutoon wala nangam ak nangam loolu liñ ci bàyyi xel rek mooy ñu xam ne mbokk yi ñoo ñuy wax wax yooyu ak yéni mel ñëpp te mi ngi bëgg bari ci réew mi nag ndax gis nañ fi ñeneen ñoo xam ne it ci xeeti waxin yooyu lañuy wax xaj na yëgguñ ca ña fa ña ca fa ca ñenn ñi yegg waaye su réewuñ at mu ne rawat na ci weeru koor balaa jeex faw da nga dégg ñu wax ay toj toj yu rëy ci wàllu diine nit ñi di ko tasaare ci réseaux sociaux yeeg di ko waxtaane naan dégg ngeen li di wax te fekk yooyu yëpp dara du ci dëgg dara du ci lu baax li ma taxam nag mooy ñi koy wax li ñuy wax du lu bees loolu rek mooy li ma taxam du lu bees wax la joo xam ne ay nit a ko doon wax depuis ay jamono waaye daa mat a xam wax ji fan ci ñan la jógee wax ji ñi jóge jógee ci ñoom cosaanul cosaan la ay nit ñu gëmut yàlla la jóge ci ñoom ay yéefar tudd nañ fii ba tàyyi orientaliste yi xam nga ca siècle ba la ca gannaaw tubaab yi dañoo doon def liggéeyu ay nit di jóge Occident di ñëw ci réewi jullit ñi di jàng arab jàng ko ba dégg ko noo xam ne léeg-léeg sax yenn arab yi mënuñ ko dégg noonu ndax arab aw làkk la rek boo ko jàngee mën koo déggee noo xam ne kane ca la juddoo mën na ko bañ noonu jóge ca jàng xam-xami diine yi ñenn ñi dañuy jàng alxuraan ba mokkale ko noo xam ne bari na borom xam-xami jullit yoo xam ne sax mokkale wuñ ko noonu jàng xadis yonent bi alayhi ba mokkal ca lu kenn xamul nu mu am na ñoo xam ne bind nañ ci ay téere yu rëy rëy sax yoo xam ne ci wàllu ay xadis la jëm ak yu ni mel liggéey ci liggéey boo xam ne jullit ñu bari liggéey ñu sax lu toll noonu bind ay téere nag la ca doy waar nag mooy lii lépp biñ koy def ànd loolu ay yéefar lañ ba tey du ñuy jullit si seen junni xel xalaat te dugg ci lislaam itam ndax gëmuñ ko waaye daa am yitti ju tax a jóg ñenn ñi dañ leen financé pour ñu ñëw jàng loolu ñu bëgg ñu jàng ko ngir xam l'islam dëgg-dëgg man koo comprendre comprendre jullit ñi seen melokaan yi fu mu jógee ba buñ noppee mën a xool plan yi ñu tëral ak tëral yi ni ñu tër ba luñ bëgg a def ci julli ñu ëllëg ñu a xam fu ñu ko jaar ñenn ñi doon ñoo xam ne ci seen seen euh, yitte bopp lañ jóge rek def ko ngir seen bëgg bopp lu ca mën a xew ñooñu may wax ay nit ñoo xamante ni bi donte nag am na ca benn benn ñoo xam ne suñ borom defal na leen tawféex ci biir gëstu boobu ñu doon gëstu njàng ma ca lañ mujj jekk-jekk far mbir mi convaincre leen ñu tuub dugg ci lislaam ñoo am nañ feex waaye xam nga li mat xam rek mooy xam-xamu diine moom bokkut ak xam-xam yi ci des xam-xam yi ci des ajowul ngëm ajowul ngëm jàng économie économie lu ñu ciy gëm amu ci xam-xam la rek lu ñuy gëm a mucc jàng droit droit lu ñuy gëm amu ci maanaam droit bu dul bu lislaam la bëgg droit bii ñuy jàng lu ñuy gëm a ci yow mi koy jàng sax bu la neexee mën naa am yaa ngi koy jàng waaye lii ñuy wax convaincre la waaye da xam ne lii lañ tëral nga ànd ci rek waaye yow mi koy jàng yow sa jëmmu lii ñuy wax nii convaincre la yow d'accord ci waaye gannaaw nii lañ koy waxee faaw nga waxee ko nii faaw nga jàppe ko nii itam yeneen xam-xam yi jëseeb noonu mel xam-xamu lislaam nag buñ fàtte ne xam-xamu diine la moo tax base bi mooy gëm ko ba noppi faw nit ki koy gëm ba noppi doo ko jàng xam ko nag bu dul loolu ñàkk gee gëm dana gàllankoor ni ki ci lu bari lu ci waroon a dégg du ko mën a dégg nam mu a déggee léegi kooku nag bu dee nag daa dem ba jëmmi jamono moom moo bëgg a wëlbatiku nag di jàngal nit ñi lislaam ñooy jàng ci moom jan sam lañuy jàng kenn doxam xam doon te loolu yàgg na fi boo demee Europe ak Amérique université yu bari yoo xam ne dañu am département boo xam ne dañuy jàngale wàllu wàllu Euh, pensée islamique wala dañuy jàng lu jëm ci wàllu islam am fii ci suñ biir réew mi nga xam ne xam naa su ne bokk ñooñ xam nga xam da nga mën naan diw diw diw tudd jàng tur nañ ca Sorbonne wala ca université sàngam ca bitim réew wala beneen barab ca département yooyee di jàng di islam kooku bu jàppee lislaam lay jàng <laughs> ñu koy nax te xamu na ñu ngi koy nax parce que lislaam joo xam ne ki koy jàngal moom balaa dara xew gëmu moom yàlla mi nga xam ne mooy départ bi moom yàlla jëm gëmu ne am na ku gëmu ne yàlla am na moom xam nga yi ci des kenn waxalewu yàlla jëm gëmu ne am na moom léegi ba noppi bëgg nag di jël ay aaya ci alxuraan di la ko firil wala mu jël ay xadis ci xadis yonent bi alayhi salaam di la ko firil te moom gëmul na yàlla am na ku gëmul na yàlla am na yonent bi moom waxi nopp kenn waxalewu kooku bu lay firlu xadis fu mu koy teg fu koy teg lépp da koy teg ci xel ak li ko xelam jox ak na ko bëgg dégge ak ña ko doon jàngal nañ ko ko joxee loolu rek foofu rek la koy teg yooyu nag moo jur dem naa dem ba am ab kuréel bu sosu boo xam ne ñoom la ñu tudde ay alquraani yoon ay nit ñoo xam ne nee nañ ñoom lislaam ji benn mbir lañ ciy sukkandikoo muy alquran ji rek téere téeréb alquran bi kese xadis yonente bi alei salatu salaam bu leen ko kenn tudd pour ñoom benn xadis bu wér amul benn ak bu mu mën a doon nag xadis yi moom yëpp lañ raxasoo ba mu set sànni kenn du leen tudd ay Buxaari yi waxuma laa nga naan muslim wala nga naan nen benn xadis pour ñoom wérul léegi dugg ci ay ay contradiction yoo xam ne kenn mënta xam lu mu doon parce que kenn munta gëm alxuraan ji gëm ne na mu wàcce woon ci yonent bi alayhi salaam nga ko gisee nii ba noppi weddi xadis yi mënta ne parce que ñi la ko jox ñenn la ñenn la ko jox de yow fekkoo yonente bi alei salatu salaam yonente bi alei salatu salaam yow sa digg ak moom ay siècle yu bari ñoo fi dox alxuraan ji mu indi woon ay nit a ko mokkal di ko sàmm di ko jàpp jàng di ko jàngale di ko toxalante ba mu yegsi ci yow gannaaw ay siècle yow même ñooñu ñoo la jox xadis yi léegi boo bëggee nag ñaari biir yi nga ne bii daa ko weddi ndax wérut waaye bii moom wér na naa sukkandiku mooy yow ci jëm da ngay caaxaan ndax munta nekk li nga bëgg a dàq teqale mënut a ko ndax ñenn ñi ñoo la ko jox ñenn ñaa la ko jox mënuma kenn nit ñëw jox ma ñaari information yoo xam ne yëpp ci kenn la ko jële mu kon ne ba yegg fa mu yegg te uma jënd firnde ju ci dàq jenn ba noppi ma bëgg a ñëw daan ne ko jenn ji moom nangu naa ko waaye bii moom nanguwuma ko loolu teguut fenn xel sax nanguut loolu léegi ñooñu nag am mbooloo la moo xam ne ci réewi arab yi moom yàgg nañ faa tasaaroo depuis ay jamono ay nit ñu bari dugg ci seen xalaat yi ak seen gëm-gëm ya léegi nag rogalaat naa rogalaat ba ci at yu mujj yi lu ma tugut fukkeet dugg na ci réew mi xam nañ fi ay nit ñoo xam ne ñooy taxaw di ko tasaare ubbi ay seen YouTube boo duggee ci seen yi da fekk vidéo buñ ñu dugal ay junni junni nit koy seetaan ci diir bu gàtt lépp di la wan Sénégal ni mu bindoo bëggub lu ñutu ak bëgg lu bees dem ci millier universitaire bi tàmbalee influencer étudiants yi ndax ku ku bëgg sam jaay jar te marché ba ngay dem marché bañ koy jaayee buñ fexee ba dem ci jàngkat yi fexe ba tourner seeni bopp pour tourner bopp yi population bi day daal yomb te fekk la koy waral nag mooy ñañi demit pour ñu dugal seeni bopp yooyu day yomb ndax koo xam ne moom jàngut ci diine dara dëgg la doomi jullit la doon nañ ko jéem a yar ci ci lislaam waaye diine moom xamu ci dara lu weesu ci laa juddu ak ci la bokk nga ñëw di ko wax ay masala yu compliqué yoo xamante ni bii ne borom xam-xam dëgg ko mën a xam la nga wax pour mu convaincre ko mu jàpp ne leer na ci boppam day te fekk dara lu ci leer nga wax lépp luñ jaxase rek la kon moo tax liñ daan wax rek ñun am nañ kaaraange loo xam ne buñ ci jàppee danañ mucc jafe-jafe bi nag mooy fi jamono toll léegi dafa mel ne nit ñi fi ñu woote jëm ñu bari mooy dañuy woote léegi ab rupture boo xam ne dañoo bëgg mu am suñu digg ak ñañu fi jiitu woon jàpp nañ ne ku ñu dégg muy wax ñuy wax mu naan Sëñ Tuubaa nee na wala naan Cheikh El Hadj Malick si nee na wala Cheikh Abdoulaye Niass nee na wala yooyu yow ko tardé nga ndax sa jamono nga nekk da ngaa war a indi say xalaat da ngaa war a l'islam moom doxewut noonu xaj na nag yeneen i xalaat moom mën naa doxe noonu waaye l'islam moom doxewut noonu moom l'islam moom daa doxe mbir yi daa am ñu fi jiitu jiitu guñ la fi jiitu dong taxul nga jàpp leen waaye dañ la fi jiitu te te mate ko mate gañ ko mate nag moo tax nga war leen a def ay royukaay te loolu ci xam-xam bu mën a doon noonu la demee xam-xam boo mën a dem danga nga fa fe gëmul yàlla sax laa wax da fekk ay nit ñooñ lu ñuy wax ca wàllu xam-xam boobu faw ci ñoom la ñuy référé te loolu ba ci xam-xam yu bees yi mu jaam rek noonu la demee boo ci dem am na ci ci xam-xam yu mujj yi nga xam ne biñ ko formaliser nii kii ko théoriser ko yàggut am na ci yoo xam ne ña ngay tudd dem ñu leen di tudd comme ay référence ak delluwaay ñoo ngi ñi ma tudd léegi ñoo bokk jamono soriwu ñu jamono xam-xam moo tëdd noonu lu mënta ñàkk la waaye diine nag daf ci rawati diine moom du yëf yoo xam ne dañ koy teg ci xelum kese wala nii ko déggee wala nii laa ko gisee wala yooyu ndax mbir mi gën naa compliqué yow ni nga koy jàppee ni nga koy xoolee nii rek mu simple ci yow gën naa jafe loolu gën na ko compliqué moo tax laaj na ak xam bu baax doo ko xam fi ngay teg sànq doo ko xam ni ngay jëfe te nag wattandiku nag lu bees loo dégg rek lu ñutu ko wala lu bees loo déggit gëm ko loolu lu mat a wattandiku la loolu may wax nag suñ kilifa yi ñu tañ mat sëkk ay delluwaay ci seen diine ci seen xam-xam ci seen mbaax seen ragal yàlla ak résultat bi leen yàlla may ku teg sa tànk ci fañ tegoon seen tànk doyloo lañ doyloo woon da nga mucc tey danga nga mucc ëllëg waaye li wér wóor mooy ku wàcc seenu yoon yàgg-yàgg réccu den la dikkal moo xam muy tey wala muy ëllëg waaye yàgg-yàgg réccu den la dikkal amul benn sikk sàkk loolu euh, kon xam naa dañuy taxaw foofu ndax imaam Cheikh Awa Balla yegsi na war a ñëw ak ñun ci sunu bindub tey ci masalikul jinaan waaye ñu daanee rek sëriñ bi lim wax ci diine ji te mooy ne diine ju dul diine yonente bi alei salatu salaam suñu borom gërëm lootu ko képp ku diine woo jeneen diine ju dul ji itam doo mën a jege yàlla mukk yàlla def lay dàq ci péyam ba jege yàlla moom mënoo ko loolu nag lu mat a xam la parce que léeg la nga dégg fii ci Sénégal nga dégg dara xew ñu ne na ñëpp ñaan ndax ñun ñëpp yàlla lañuy ñuy jaamu na ñëpp ñaan loolu sëñ bi ab jullit du ko wax ab jullit du wax loolu de dafa mat a xam ne mbirum diine dafa lu complexe la dafa doy waar du lu ñuy foye du lu ñuy caaxaane du lu ñuy maslaaye du lu ñuy jàmmal jàmm sante diine du loolu de diine moom ci la mbir yi teqali ko maanaam mën nañuy maslaa suñu biir sunu bokk suñuy jëflante suñuy lépp mais bu diine yegsee nag diine moom beneen mbir la moom diine moom beneen mbir la waxuñ kenn nag ne koo bokkulu diine da ngay ñaawal sa digg moom loolu kenn digalu ko kenn ndax yàlla jëm dañoo tere loolu daf ñoo digal ñu rafetal suñu diggag ñépp waaye nag diine moom dalay tegal ay frontière da tegal ay frontière diine ji nga gëmut nga xam ne yow lañ cee wax da nga koo gëmut moo tax nekkoo ci mënoo boole na gëm naa ko góoma ko loolu mënta nay nit da ngay weex maa nga ñuul waaye doo nekk ci diggante bi waaye bëgg na ab jullit laa ba noppi bëgg a wane ne diine yëpp a wér yëpp benn la ñun ñëpp yàlla la ñu jàmm loolu da koy dégg lu bari ñu di ko wax ci réew mi surtout bu yenn xew-xew yi xewee loolu ku koy wax war ngaa nafaraat sa bopp ndax mooy lislaam ji nga nekk moom dafa mel ne yow léeru léerul ci sa bopp ndax lislaam moom boo xasee nangu ne jeneen diine ju existé ju fi nekkati am na ju yàlla gërëm loo mi ngi feete ci kaw suuf ju dul lislaam ji yow génn nga ci lislaam yow lool lool lu ma taxam la <laughs> lu mata xam la loolu pas-pas la loolo bis boo xasee nangu rek ci sam xel ak sa xol ne am na jenn diine ju yàlla gërëm looti ju yàlla nangooti ci kaw suuf judul lislaam ji yow génn nga ci lislaam yow ndax li yàlla wax weddi nga ko li yàlla wax weddi nga ko li yonent bi aleyhi salaam wax weddi ko yow kay liñ la digal mooy sa diine ji yaa ngi ci mooy dëgg te gëmal ne mooy dëgg te noonu la demee it kaneen ku nekk jënin diineem ku mën a doon nag bàyyeekook diineem bu ko ayibalal bu ko sikkalal bu ko joxal ab safaan ndax sañoo ko nag loolu moom sañoo ko sañoo ko loolu lu ma taxam la waaye nag maslaa lenn du la yóbbu ci mukk nag nga naan yëf ñoo yam yamale yu moom ci rek jàdd yoon tàmbalee mënta nekk loolu mënta nekk ndax bu yemoon war nañ laa laaj kon lu tax yow nga nekk fii lu tax nga nekk fii bu dee ñoo yem kon loolu lu ma la la euh, sëriñ bi teg ci ne te képp ku diine woo jeneen diine judut lislaam ji it ajjana moom du la xeeñ ëllëg waxuma laa nga dafa dugg lii lu mat a xam la ndax gis nañ fii ci réew mi ci sunu jëflante xam nga ni ñuy jëflante ci biir ci diine yu wute yi fi ne lu rafet la te am solo te lislaam bëgg ko lool lislaam daa bëgg ñu jëflante jëflante bu rafet jëflante bu nite waaye nag na tënku ci fi mu war a yam loolu mooy mooy mbir mi dafa am ay frontière frontière yi nag nañ fa yam buñ ko jéggi suñ jafe-jafe nag mooy yàlla na yàlla baal sunu ñàkk xam diine ba noppi di jëfandikoo suñuy xel di tarax taraxi rek moo ñu yóbbee frontière dañ koy bëtt yi jàll ba noppi jàpp na ñu ngi ci ba léegi te wurtu demee noonu wurtu demee noonu ngërëmul yàlla wala ngërëmul mbindeef kenn du ko wutee merum yàlla kum mën a doon sab xarit la sa mbokk la lu mën a doon bokkoo leen diine ji bokkoo leen ko fayda jam am moom ba téye diineem nekk ca amal ju ko ëpp téye sa diine nekk ci bu ko xasal diineem bu ko ca waxal ab safaan waaye nag li nga gëm-gëm ko da jàpp ci diine jàmbur nga noppi ci nam noppee ci sa diine yow waaye nag bëgg fee nekk naan yëpp a yam lii la nangam ak nangam ñuy gis sax ci réew mi léeg-léeg nga am xarit boo xam ne bokkul diine ji day faatu ñu di ko yóbbu ca seeni armeel di ko denc nga ne da ngay ànd ca denc ba loolu lislaam dafay tere ko bokkul diine doo teewee ab dencam ndax loolu mbirum diine la denc ku faatu mbirum diine la te mbirum diine moom kooku bokkul rek da ci teqale ko loolu mooy lislaam koo bokkul diine faatu na buy dund moom loo leen mën a séq ci rafetalante rafetalante séq leen ko loo ko mën a may may kooko ko loo ko mën a wax ci lu baax wax ko ko loo ko mën a defal ci lu rafet defal ko ko loo ko mën a ñaanal ci yiwu adduna yitam yàlla yokk wërsëgam may ko fan wu gudd may ko njaboot defaral ko ay ay projet am nangam lépp ñaanal ko waaye bis buñ nee nag génn na àdduna faatu na yow sax ñaan ci moom foofu la yow bu doon bàyyi jële jur wala nday jële jur sax amatoo droit ne yàlla ko yàlla yërëm sañoo ko amatoo ko amutoo boobu loolu lu ma tam ay xel la léegi nag dangay ngay dégg léeg yu mel noonu xew nit ñi nekk ci rajo yeeg yi di coow nga dégg ay nit ñu ñu tuddee boroomi xam-xam ñuy wax yoo yoo xam ne kenn mun laa wax fu ñu ko jëlee lu may ci seen xeli bopp waaye jële wuñ ko ci benn xam-xam bu wér moom ndax li la sam jàngale tam leer moom mi ngi fi ñi ko jàng ñëpp xam nañ ko léeg-léeg nag bëgg a wut ay ngërëm yi nit wala bëgg am ay bës xaw ma nuñ koy waxee dana yóbbee nit muy wax yoo xam ne mat naa bàyyi xel ndax wax loo xam ne dana neex ci noppi ay nit ñu gërëm loola ñii di la wooy téléphone di la di apprécier la nga def ñii naan jàmbar nga ñi naan lii nga ñi naan laa ñii nekk ci internet bi di bind naan moom moo lii moo laa tam euh, la nga wax dëppoot ak li yàlla gërëm loolu lu mat a wattandiku la yonent bi aleyhi salaatu ne woon na nit dana wax benn kàddu goo xam ne lam ci jublu du dara lu may neexal ñam toogal dana ca xalambaayu ca xuri sawara yu juróom-ñaar fukki nawet en ca lu musal loolu lu mat a bàyyi xel la merum yàlla kenn du ko jënde ngërëmul nit kenn du ko def ñàkk xel dëgg mooy loolu ndax nit ñi moom buñ la gërëmee amul la njariñ te seen gërëm yàggut fi ne loo fi mën a wax bañ d'accord ak di apprécier di aimer say say publication ka wax nangam bu gannaaw subaa boo fi waxee lu leen arrangé wul ñëpp woon la gannaaw taxaw moo tax jëru ko del fexe ba li ngay wax na tege ci dëgg te tege ci li yàlla bëgg rek ku d'accord moo xam ku d'accordul moo xam waaye na yàlla d'accord loolu mooy li am solo yàlla moom bu d'accord rek lépp baax na keneen ku mën a merit yow am meram du la wàññi dara moom waaye keneen ku mën a gërëm bu yàlla gërëmut du baax ci yow du baax ci yow tey du baax ci yow ëllëg itam kon ñoo xam ne diine noonu la tëdde koo bokkulu diine doo teewee dencam bu xasee génn àdduna dootoo ko ñaanal yàlla yërmandeeti sëñatoo ko sëñoo ko loolu sunu borom da ko tere woon yonent bi aleyhi salaam sañatoo ko amaa nag lu tolloog jaale ji ko moom borom xam ne dañoo xam ne moom man naa ne man koo jaale ji jaale ji ko ay bokkam bu dee da ngeen koo seqoon mën naa ne waaye boo ko jaale ji xel sa la wax bu fa dem di wax la nga daan wax ci boo jaale ji sa mbokkum julit sa mbokkum julit boo ko jaale jee boo demee ay bokkam da nga leen masawu defal leen ñaanal ko faatu yàlla yërëm ko jégal ko waaye fii moom da leen masaw da leen defal waaye kafaatu moom bul wax jëm ci loolu moom tey ci ka faatu bul wax jëm ci ñoom ñii fi nekk daal sañ nga leen a ñaanal lépp luy yiwu àdduna moom waaye kafaatu moom bul wax jëm ci yow ndax nag loolu moom li ñu ruus la sañoo koo jég yow loolu lu mat bàyyi xel la kon ñu taxaw foofu ba ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu فالقلب طيب غريبا لنا asna li تنتفي نار غدا وسبور xaytu ma ata na ngeen xam bu leer ni doomu aadama li mu war a taarloo deme ko ca ndaje ya moo di teggin ak fu mu mën a jaar na yori teggin néew na am ñu jël nit ak teggin ya di ko mbugal ñaare ka ñuy mbugal daa ñàkk ay teggin anaam yoru ko fa kullu man bi xayrihi raamal wusuul li xadratillaahi fa xumrun laa nabiil nee koo xam ni ma ngay jéem a àgg ci péeyub yàlla te jaarewu ko ci ay teggin ab dof la bu amul xel day gëmmentu boole ca wa nataqu bi annahu kaada yakun sulusay diini fa fadluhu yabin boroom xam-xam yi dem nañu bay bëgg a wax ni teggin daal bu ñu xaajoon diine ñetti xaaj benn bala kon mel na ni moo ëpp ci diine kon nag nit war na koy jéem a amee mu ne nag teggin waxuwa xismaani lada daymaani adabu zahirin ma al insaani wa adabul baatini ma rabbil basar wa yatbau al baatina maa qad zahar maa qad tahar maa qad tahar mu ni boroom xam-xam yi neeñu teggin dafa séddalikoo ñaari xaaj dafa am teggin jooj yu ñuy wooyee yu baatin ak bu zahir bu teggin bu baatin beeg bu zahir bi nag bu baatin bi mooy bi ngay ànd ak yàlla bu zahir bi mooy bi ngay ànd ak jaam yi waaye nee na bu baatin bi mooy jiitu bu baaxee rek bi ci des mën naa baax day mel ni moom lay topp rek di ko toppandoo saabu bu nit defaree biiram ba mu baax kaw ga yi day daal di ñëw baax ndax ku jox yàlla teggin yamu mu yellool faaw nga jox ko jaam yi ñoom itam fa udda yi zahirihi usnul xuluq wa misluhu alxayaau fastaayi tafoq bokk na ci ay teggin rafet jikko jikko ju rafet mooy nit koo xam ne du tooñ mukk te ku ko tooñ mu baal la du xañe mukk te bu amee it jox ka mu ka ko daan xañ waxuma laa ka ko xañul di jokk itam ku ko doon dog waxuma laa ka ko dogul kooku mooy jikko ju rafet di jéggale def nit ñépp ñu am orma ki nga mag nga yërëm ko ki la mag nga def ko ku ñu wekk ki nga moroomanteel nga def ko ni sa bopp jikko ju rafet na googu wa mithluhul xayaau beneen jikko bi mooy bari ay kersa am kersa ruus ruus yàlla rus bindeef yi kon nag na nga fexee am kersa kon nga kawe sang maat wa وهكذا تيامن وتسمية أي في محل لكليه مدرية bokk na ci ay teggin yoo xam ne ay jëf la mooy ndijoorlu doomu aadama day fonk jëfe ndijoor booy lekk lekkeel ndijoor booy naan naane ndijoor booy jottali mbaa joxe booy jottaliku mbaa ngay joxe nga defee ko ndijoor bépp barab boo xam ne ndijoor lañ fara def nga defe ko wa demee ci kutubul fiq yi nañ koy lim nii la booy dugg ci biir néeg ak ci biir jàkka yépp na dugal sa tànkum ndijoor fenn rek lañuy ñuy càmmoñu mooy kuy dugg wanag kuy dugg wanag moom tànku càmmoñ mooy jiitu bu fay seetu buy def foofee lu koy seetalit ba tey loxoom càmmoñ la koy jëfandikoo kon foofu la càmmoñ ameeb liggéey waaye mboolem teggin yi ndijoor lañuy def booy dox booy wax booy dugg booy génn yooyu yëpp na nga jiital ndijoor ba mu def jàkka boo ciy dugg da ngay jiital ndijoor booy génn nga jiital càmmoñ waaye bu dee ci kër la ndijoor mooy jiitu booy dugg ak booy génn euh, tayamun dafa bokk ci teggin yi nga xam nit koo xam ne lu muy def daf koy defee ndijoor ba léeg-léeg nga gis ci nit ñi nga xam ne dañoo jàppe seen bopp ñu civilisé ñu faral di naane seenub càmmoñ waaye loolu duy teggin ak yàlla lu teggini diine teggini lislaam mooy booy naan mbaa booy lekk dangay jël sa loxol ndijoor am na kook jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daf ko doon digal aw lekkim ni ko jëlal sa loxo ndijoor waaye xam nga ceddo ga dañoo rëy ndigal lim ko jox rek bañ na ko ba tax daf ko ni mënuma ko yonent ni ko yàlla boo ko man keroog la loxo ba mujj a dem ca gémmañ ga mënul caa dem kon lekk naan ak soccu yépp nee na ci teggim yi la bokk booy lekk defal di yoor soccu it jëmmi soccu rek teggin la rawatina ci julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lawla an asuqa ala ummati la amartu bi siwaaki la amartu lahum bi siwaaki la lada kulli salaatin aw kama qaala al Mustafa sallallahu alayhi wa na bu ma ragalul woon lu metti ci sama xeet bañ ñu dem ba di ko farataal damay wax ni soccu farata la na ngeen koy def am na beneen xadis boo xam ni da boole ak yeexe gee ba ca sulus ba loola it am na fu mu àndeeg loolu mu ni bokk na ci teggim yi kasal musaafaatu wa tilaawa boo dee nuyoo nuyoo mooy asalaamu aleykum mu ni la wa aleykum salaam loolu mooy li doon sunna ak waajib waaye nag sopp nañu bokk na ci teggib nga joxe loxo joxe loxo te boo ko joxee loxo bokk na ci ay teggiim ka nga jox loxo ba moom yow mi joxe yow mi joxe yaa war a njëkk a bàyyi te bul ko xëcc nga xam ne danga ngaa cofet yooyu le li booy daf di wax cati baaraam loolu it bul ko def bul ko def ba noppi ni kell na nga ca boole as wax muy jàmmante wa ki ñaan loolu ci tegg mi la bokk wa tilaawa di jàng alquran ab julit dafay jàng alquran ak lu mu néew néew walaw salaasatan min al ahsaabi doonte ñett itim ngay jàng par bis mbaa ko gën a néew waaye na koy def ifsaauka salaama bokk na ci teggi ni jaam yi booy nuyoo nga wax ca kaw asalaamualeykum bu ñëpp dégg te bañ a ngiing rek waxoo dara mbaa nga dikk ni muy nuyoo nun mooy dikk rek joxe loxo loolu yow lañu sopp nga def bàyyi la nga xam ne moo di sunna sa sunna sa mooy asalaamaaleykum boo ca yeman doy na waaye joxe loxo kese yam ca it doyul danga nga war di wax ba noppi soog a joxe loxom mbaa nga wax ma joxe loxo wa saqaawa bokk na ci teggin yéeg jikko yu rafet yi tabe doomu aadama day tabe ci nangoo joxe li ko yàlla wërsëgale moo xam alal la moo xam xam-xam la moo xam dooleem la ju soxla fi baram lu ci ne bum ca nay boo waree dimbali nit ku néew doole doonte lu mu yëkkati te attanu ko nga yëkkatil ko ko doonte am masala boo ko xamal la doonte benn dërëm nga ko jox waaye loolu bokk na ci jikko yu rafet yi wa hakaza iyadatul bokk na ci jikko yu rafet yi seeti ku feebar doomu aadama bu amee mbokk mu feebar war naa dem seeti ko bu dikkee ñaanal ko te bañ fa yàgg nag ndax léeg-léeg nit dem ci malaat boo xam ni coono ba metti na nga toog fa rek jéemale kañ loola itam baaxul seet ko ñaanal ko rekk te dem nee na waraddu ko salaam ak fayee nuyoo delloo nuyoo bu la waaje waxe asalaamu aleykum nga ni ko wa aleykum salaam nee na lii de mooy teggin yi ma la indiloon jël ko bu baax wa am du atisin bokk na ci teggini jullit bu tislee mu sant yàlla bu tisoolee na sant yàlla wa tasmiitun yurat ak ndokkeel it nañ koy def ndokkeel ko boo waa ji tisoolee wax alhamdulillah yow it ndokkeel ko ni ko yar yarhamukallah waaye bul ni cele rek nee ko yarhamukallah bu la ma nee waxaat moom it yahdikumullah wa yuslihu baalakum baax na waaye daal ndokkeel gi yow war na la delloo gi ak bu fekkee sant na waaye bu tisoolee te waxul alhamdulilah nag doo ko wax ko la day wax alhamdulilah ba noppi nga toog koo wax loola wa saddu fammin li bi biyat bokk na ci teggim yi nga xam ni day taaral jullit bu dee bél béli mu ub gémmiñam ak loxoom mu ub ko waaye bu mu nga ci kanamu ñëpp nee na loolu bu mu koy def wa hakazal fitratu dog yi nga xam ni daa mel ni lu war a ànd ak yow ba faw la te moo di lewi weyi ak yamu àndal loolu it bokk na ci ay teggi wastisanun qabla duxuli ayyuhal ixwaan mu ni yéen bokk yi bokk na ci seeni teggin yu ngeen war a làmboo bala ngaa dugg ci am néeg nga yëglu yëglu nag fëgga nga ca eh, xeddami ko nga ca yëngal dara nga ca waaye boo yëgloo ba ñu yëgle nag nga nuyoo waaye bul fëgg rek daal ubbi dugg loolu duy teggin bépp néeg boo xam ne nii du sam néeg du néeg bu ñëpp bokk boo cay dugg nañ la yëg bañ la dugal buñ la wut dugal bul dugg ñu bari dañuy juum foofu bu ñu ñëwee dañuy wax rek asalaamualeykum kooku sax baax na yëglu nga nuyoo nga waaye dañuy daldi dugg ubbi bunt bi mbaa ñu añ rido bi dañ fee kenn dafee néewulam loolu la ko xamal waroo ko wan xam ndax yow bismillah nga doon diglu te déggoo ko kon warulaa dugg boo duggee it fekk mu nekk ci melawu ñu wërta waxal mel ni nga fekk ko muy nelaw bul di wax ca kaw naa ko da day nelawam day nelawam yeete la kon dugg ci néeg boo yëgloo boo duggee bay gis kuy nelaw jàdd nga yoon wa ndax bu doon yoon la danga war a xaar ba ñu ne la jàll si te kii nelaw xam nga du la ko wax kon kon li la xamal ni day nelaw mooy danga jàdd yoon wi wa minhu aful mar'i am man zalama bokk na ci teggin yi jullit war di melowoo mooy jéggal ku la tooñ moytul tooñ waaye bu ñu la tooñee it dee ko jéggale ومثله اعطاؤه من عرما ba tey bokk na ci yi ñu bëgg nit jullit melawoo ko melaw yi di wax yépp ki ko melawoo mooy jullit piir nee na jox ku la xañ koo xam ni buy séddale teggi la booy séddale bul ko teggi yow jox ko wasilatun li kulli saxsin xataa ku lay daggit na ko jokk koo xam ne ni moom du la seet du la téléphoné amul ci yow paal tey mbokkum jullit bee ko seeti léeg-léeg bee ko téléphoné léeg-léeg wal birru aydan fantabih wattabia na ngay def ci ñoom lu baax ànd ak ñoom ci baax maanaam li ñuy tuddee nag silatu silatu rahim ak al birru wasilatu aw al birru ñoom ñaar dañoo war bu dee ci ak bokk la war ngaa jokk ku ne waaye bokk moom jokk ko daa war war ngaa jokk mbokk gi bu dee topp war ngaa topp ci nit ku ne def ko lu baax waaye wa walidin doo ba waajur a ca raw waajur moom dee wara war a sàkku walaw yantami li sirkin doonte bi yéefar la bul ko merloo del seet yemu bëgg te araamul nga di ko defal del bàyyi tere ya tere te araamul dee ko bàyyi ndax mooy sa waajur wa minhu tarbiyatuka al awlaada likay yanaalu baadaha rasada bokk ci ay teggin yar say doom teg leen ci yoonu njub xamal leen njub ga ni ñu war a jëf leen teg nit ñi xamal leen seeni bokk nee na xamal leen seeni bokk di leen wax boo jàkkaarloo mag na ko wekk bu dee rakk la na ko yërëm bul wax ci kaw ci kanamu mag bul di toog moom ci kaw yii yëpp da ko koy jàngal li kay yanaalu baadahu rasada baadaha ndax ci loolu la ñuy amee njub ëllëg ñu doon njub nga xam ni danañu xam seen baay xam seen maam xam seen mag ku ci nekk ñu jox ko àqam bu mu sàllalu mag nay wax sëriñ bi mbaa baay ji mbaa yaay ji waaye bu muy jaar ci turu bu rappelé wa loolu it bu mu koy def na nga fexe ba jàngal ko xale yi ñu baree bari dana ñuy juum ci loolu ca bu jëkk mag ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee àll te ñoom ñoo gën a mën a yar bu ñu masaa am ndaw lu ñu yónni ci mag ndaw la dikk jaar ci turam da koy duma waaye bàyyi baa koy def nag day doon sa moroom nga ne ko demal neel diw bu dikkee danaan diw rek waaye boo ko nee demal ca sa baay diw bu koy laaj ca baay diw lay wax bu dee ndijaay diw ndijaay diw lay wax kon loolu ci teggin yi la bokk boo demee ci yeneen waaso yi dañ koy def bu dee ca arab ya danañu wax sa yit nangam wala ñu tuddee la turu rafet woo xam ne mii moom lañ lay wooye mu ni nanga nga ñeewante ndaw ñi te màggal mag ñi mag moo dajeel na nga ko màggal yëkkati ko fajal koy aajoom doonte ay dàll képp yoo koy wëlbatil la na ko def wa jaalu mithlika ka nafsika stawa niki noonu sa moroom it nga def ko mi sa bopp loo bëggalul sa bopp bul ko bëggal sa morom moom yi loo nar te defal sa bopp bul ko def sa morom moom yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ak njubla la na ngeen koy taqoo wa qaala aydan saaxibul wasiya muxaatiban libnin lahu masiya sammir ila makarimi al axlaaqi xaalisu al amali min an nifaaqi mu ni boroom wasiye ba ka doon dénk doom ja ka doon dénk doom ja da doon wax ak moom am lu mu ko wax daf ko ni yow sama doom sàmmir wagasul ila makarimul axlaaq dawal nga wuti makarimul axlaaq loolu la dénkaane woon bu jëkk xele bu ne day am bu ngeen de tàggoo muy tukki da koy dénk ay baat yoo xam ni yu baax lay doon te mën naa am du ko fàtte loolu la kii doon wax doomam gi naa ko sàmmir gaawal wagasul dem wuti makaarimul axlaaq te nga sellal sa jikko ak say jëf bu mu am dara ci naafiq looy def na doon loo gëm waaye bul def dara ngir doomu aadama yi loolu ak naafeq la bul ko def kon dénkaane lu am solo la léegi lañ koy ba waaye bu jëkk koy tàggu tool dana la dénk dara bu dee ca sëriñ yi la bu ñu lay yeewi dañ lay dénk la boo demee nga góor góorgóorlu ci nangam ak nangam ak nangam loolee day boo ko defee dana la jariñ tey jariñ la ëllëg hmm. kenn ngi ci ñoom Mawlana Cheikh Saarixu Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Xaadimu Rasul Sëriñ Sall mi ñu daan wooyee Sali wa ambassadeur da doon dénk doomam doom ja nag mooy Sëriñ Mbakke Soxna Lo mooy ba ñuy tàggutoo muy jàngi dafa am lu mu ko dénk daf ko ni woon bu nay yattaqi rahmana waxfat ududahu fa inna tuqa agla wa anfatu ma duxir mu ne ko yow sama ndoom foo mën a jëm ragalal yàlla ndax nee na ragal yàlla lépp lu nit bi denc yaakaar ko ëllëg moo ca gën kon def ko wa kun taaliban lil ilmi fal ilmu xayru ma biis daana nee na demal nga wuti xam-xam nag ndax xam-xam kat lu nit di pou ko réewoo ka denc moo ca di ko limal fànn yam war a jàng yépp nag wala tansa ilma alfiqi fa huwa ajalluha wa ilma alluga la tansa kay tafhama suwar mu ni loo jàng-jàng bul fàtte xam-xamu fiq nee na xam-xamu luxa yit bul ko bàyyi wa ilmal maani fatlubanhu wa mantiqan fama raaxani sul jahli bil aksi wal xabar yow doom nanga jàng xam-xamu maani na nga jàng xam-xamu mantiq man sa bàyyi day kenn jommaluma kuréere aksu ca mantiq wala mu réere xabar ca maani nee na kooko yéematuma mu ni ko walasta tusaawi zarratan aw xulaamatan isa lam tumayis bayna nasbin wa xarfi jar na nga jàng naxwu bu baax man sa baay day du ma yéem ku réere arfu jar ak nasbu du ma ko li ko wa in kunta lam tadri alxadisa masanidan wa mursalahu la taaju annaka mu'tabar boo xamulee luy hadis ak masanid ya ak ya aju ci ulumul hadis ak mustalahaat ya boo dikkee duma la jàppe ngay kenn mu ni ko nag wa fasir kitab allahi walsam duruusahu ولا تهن التاريخ والوطن والسير ngalla doom boo noppee firil téere bi yàlla bi jàngal alquran te firi ko bul fàttee xam siiratul Mustafa bul fàttee xam wasnul arabi al arudu wal xawaafi nee na yooyu yëpp jàng ko bul bàyyi benn jàng nag mokkal nga xam nga lépp bul ragal jitaay yi nag ولا تك ممن إن ألمت عويسة يجيبون عنها بالتنعنع ونقر nee na bul bokk ci seex yi nga xam ne bu masala mu jafe dikkee ñu di ko tontoo xiddami koo ki xool bul ko bul ca bokk xuusal ci géeju xam-xam xuusal ci biir boroom xam-xam yi boo noppee jikko yu rafet yii nag maa ngi la koy dénk wa kun basilan lil mali in niltahu fala yanaalu l ula man kafuhu yusbiu l ajar boo amee alal joxe ko bul ko denc du dara mu ni boo xun waajoo xam ni téng laa ku doja yam bul ko mel yow loo am joxeel wa saami aqan in dalla wax fu karamatan fa man nadbu illa man afa innama qadar bu la mbokk tooñee jéggal ko jéggal ko te xam nga lu de canga mooy ku mën a fayu baale nekkal kooku nag muy dénkaane bu rëy bu bu am solo boo xam ne ñiy nekk ci daara yépp ko waral jàng mokkal ko ndax baax na ci dongo loolu mooy aada ji bu njëkk boo demee ca naa Mawlaana Cheikh bu Mbacké ba muy dénk doomam ja sëriñ bu jenn moom sëriñ Baara jenn ab téere la taalif moom ab téere bu la ca bind di ko ca dénk ay ndénkaaneem mbaa la mu doon dénk doomam ja Mawlana Cheikh Abdul Qadir ibnu Abdul Ahad ibnu Cheikh Abdul Ahad hafizahullahu waraa muy dénkaaneem ragal yàlla ni ko ta maa ngi lay dénk nag nga taxoog téere bi yàlla bii bu leen tàggoo mukk waaye ah, yaakaar naa nag kooka moom def na dénkaane la de bañ ne ko boo demee ci saal ba dénkaane da koo da taf ko bu laa génnee ba gis ko kon du ko fàtte waaye ma nga ca alxuraan guddeeg bëccëg nag yu bari mokkale ci ay loxoom xam nga lu bari mokkale ci loxoom dinaa la ci jox benn misaal am na màggal góog daayira bi ko xele yi formel seti sëñ Tuubaa yi mu jàngal daayira boobu ci at moomu dañoo dajaloo bindal ko kaamil jëndal kow nag ñëw siyaare ko jàngal ko xasida ya te ñoom ñëpp sëñ Tuubaa jur seen maam waaye moo leen jàngal ñoom ñu fayee ko loolu won ko ni ko li nga nu jàngal mokk na bu dee njàngum xasida bi noo koy def tey bu dee bernde yi noo koy jënd kaamil baa ngi nii noo ko bokk bind te nag ku jàngal ñu mën a xëy bindub kaamil moom bari nañu loolu bari na lool ci jenn daara bokk ci daar daara sëriñ Suwaybu man xaw ma ko dajale daaraam yépp sase leenub kaamil nu muy demee <laughs> ñoo ñoo liggéeyal alquran wallahi ñoo ko liggéeyal waaye nag dañ koo liggéeyal nag xidmatan saamita liggéey bu noppi liggéey boo xam ne kenn publicité wu ko yàlla rek ko moom moom rek lañ ko baal waaye buñ doon defi musaaharaat di wane ñu mokkal am na ci ñoo xam ne seeni daara kon buñ dee tari boo sàggantu di ngeen fa amum atte lu ñu jeex ku deman daaray xel koom bu sëñ Saliou Mbacké nga xam ne bi mu fiy jógee fekk na biir xel koom rek lu mat ñaari junniy kaamil yu tofal bindal nañ ko ko waaw ñaari junniy nit yu mokkal ba bind kaamil bokk nag ña mokkal te bindaguñu kaamil boo doon woo réew mi ni leen damaa bëgg tari kañ lañ fay jóge waaye loolu mooy xidma faamita dañoo liggéey te yàlla képp tax moo tax dana nu ndokkeel sunu mbokk alhaji Ablaye ja bi muy def concours bi démb mu tudde ko jàmbaar ju ñuy wax Cheikh Saliou Mbacké yell na ndax alquran ku koy teral ku ñu ko tudde ku ne war nañoo wone lan nga def ci alquran waaye ku ñuy tuddee alquran ñu mën a dem ci nangami téeméer nangami junniy nit ñëpp mokkal quraan wax dëgg kooku jaad nañu tuddele ko kon woowu tur boroom yàqu ko yal na ko yàlla fay tax bañ ko tuddee sëriñ démb siise noonu ku ci ne rek boo nee lu mu def ci alxuraan ñun la mi ngi nii yaa ngi nii kaamil yi ñu bind te xooluñu koo ngi nii loola mooy kon du turandoo yoo xam ni dañ ko def rek ngir wut dara ka koy def moom wutu ca dara lu dul màggal alquran kon yal na ko yàlla fay te bari ay kemam ci réew mi ku yitte woo daara yi la yitte woo daara yi di xam seeni problème di ko faj dolli ci lii nag concours yooyu nga xam ni ñi dàq jàng alquran la cay teral jox leen millions yu bari loolu dana sawarloo gune yi kon nag yal nañ ko yàlla fayal ñu yore daara yi yépp ñu di leen ci wóotu ci cant googu la mu ni nag euh, borom wasiyee ba kon loolu mu dénkaane woon mooy doxinu mag ña dañ daan dénk gaaya lu mu dénkaane moom daf ni woon doom ja al adaba al adaba summa al adaba wa huwa an wa aba maa ngi lay dénk teggin de mu ni haa mun ko teggin mu ni haa mun ko teggin lu mën a xew teggin waaye booy topp ak def lu baax tàmbaleel sa waajur tàmbaleel sa waajur wu góor wu jigéen teral leen dimbali leen dee leen teral bu ñu faatoo nag nga di ñaanal loola ci topp waajur la bokk والعم والعمة والأخ الكبير والشيخ إن الشيخ بالبر جدير na ngay toppatoo sa baay yu ndaw ya ña bokk ak sa baay muy ku góor ka muy ku jigéen bay tax ak bàjjen dee topp te di leen teral say mag na leen teral mag ñi màggat yi nekk ci réew mi na nga leen di tere ndax màggat nag ajo woon topp de kon foo gisee mag dimbali ko foo gisee mag teral ko ak noo ko terele lu mu tuuti tuuti jox ko alal yóbbu ko fa mu jëm walbati koy dàllam fa xasal ko lu ko takk loolu yëpp teral mag la nee na koy def wa kullu man sama alayka tukrimu wa kullu man saxura anka tarhamu nee na ku mag nanga ko teral waaye koo mag na nga ko yërëm loolu laa lay dénk doom hun antaha tamthilu baadi ma alan fal nansarif li fikri baadi ma batan ama allati batana minhu fa mata asatahu tuturat wa tujab ya fata nee na teggin yu zahira yi moom laa la wax ba mu jeex waaye yu baatin yi nag mi ngi mii yooyu moom moom it boo ko sàgganee ñaawal ko dañ lay dàq ci péeyub yàlla dootoo jege fenn yanan ci yàlla musal wa tardu an baabil ilahi wal xijaab asaddu min kulli garamin wa azab te nee na dox sa digganteeg yàlla dàqal la ba doo jaar ca péey ba mbugal yépp moo ci gën a metti doomu aadama fu mu toll daa war a góorlu pour àgg fa nit yàlla ya àgg loolu la war a góorgóorlu nit day góorgóorlu raw ay maasam maasam mooy ñan mooy ñi mu waaye nit du def yitteem rek léeg nga gis maa ngi dégg léegi benn conférence ca Daarul Moxti Sëriñ Aliyu Mbakke moom Sëriñ Fallu doon ko defal waa Daaru jaadu na nag ndaxte Seexaw Bàllaay maamam kon bu demee Daaru di fa def confrence di boroom xam-xam jaadu na waaye ma ngi wax ni Euh, nit ku am yitte du wax naan yal na ma yàlla melal ni diw yàlla mën na lu ne nu diw mën a mel rek jéem a la fexe kawe diw ñaanal yàlla lu kawe te nag yàlla yonent bi nee na inna yu yuhibbu maaliya al umur wa yakrau safa sifaha yàlla daa bëgg borom yitte ju kawe waaye nag yitte ju suufe neexu ko yitte ju kawe nag mooy koo xam ne bu ñaanee ñu ni ndo waaw déggal kii li muy ñaan waay mel ni daa jomb jombul yàlla lenn lum mu mënul amul lenn lu mu mënul amul nee na nit ke léeg mooy wax de mu ni léeg-léeg nit ki ñu ñu di ko ñaanal yal na nga mel ni sa baay waaye ñaanal ko mu raw baayam mën naa nekk di joxe na ci ay misaal yoo xam ne mën naa jaa teeg loxo de mu ni dëkk bii nu nekk doom yi fi raw seen baay ñaata lañu kenn xamul nañu ñu am na ñu raw seeni baay fuuf dàqa jàng seeni baay fuuf gën koo jub fuuf kon kooku boo ko dee ñaanal mu mel ni baayam yaa ngi koy ñaan yàlla yaa ngi koy toroxal le sëñ Tuubaa waxoon mag ña ca gànnaar eh, mu ni bu ngeen may ñaanal am na ñoo xam ne bu ñu may ñaanal dañu maa ñaan yàlla ñaan yàlla mooy loo xam ne musiba lay doon loolu lu muy tekki mooy yitteem fa mu nekk ci kawe nga ñaanal ko fi sa yitte toll yow dama koy joxe misaal ci kaw xele bu ndaw bi dëkk ci kër chef de quartier bi ñëpp ñëw ñu naan bàyyam mooy chef de quartier day naw chef de quartier day naw chef de ndaxte dara jala boo xam ni moom rek la jëkk a xam ci daraja yi ba bu la doon ñaanal daray wax yal na nga doon chef de quartier waaw kooku bu ko ñaanalee président de la république lu mu doon ak ñaan yàlla la kooku da koo ñaan yàlla mooy yal na nga dellu ginnaaw moo tax doomu aadama ji nay ñaan lu rëy rek adduwaawu isaa amman tafa wa isaa xasar tafa ñaan boo ko barilee yaatal ko yàlla nangu ndax da wax yàlla ni ko bari bee nga waaye boo ci ngortee nag day mel da ngay bëgg a tuumaal yàlla ni li mu yor bariwul mbaa nangu koo joxe waaye ku barile te nangu koo joxe boo cay ñaan xappatil lu bari rek ba ñu naan li ngay ñaan mbaa jombul déedéet jombul dara jombuta am dara jombuta am ci yu baax yi yàlla yi maye kon ñaan ko ca la mu gën a bare mu ni nag wa tardu an baabil ilahi wal ijab asaddu min kulli garamin wa adab mislu taarudi xabaihi law bi layta aw laalla aw lawla walaw nee na bokk na ci ñaawu teggin gaaral yàlla gaaral yàlla doon tekki da nga koo wax baatub layta ak a neexoon waaye yàlla def nangam loolu loo ko waxe ñaan ko mu def nangam aw la àll wala ndax lee yàlla def nangam yow da nga koo wóoluwul bul ko wax ak la ak budul woon ak nangam ci yàlla bul ko wax walaw ak bu yàlla defoo nangam nee na loolu bul ko daw loolu yëpp du teggin teggin ak yàlla daal mooy nga bàyyi ko lépp mën na lépp tey mën naa joxe lépp te lu muy def daf koo def ci kaw coobareem waaye deful dara ci force amul ku mën a force yàlla yàlla lu mu def daf koo neex kon nag neexal ko rek a baax wa kaxtiradika alayhi aw ala maxluqihi jalla li seyin azala walla ngay gaaral yàlla mbaa sax mbindeefam moo xam ne nii la ko binde nga gaaral mbind moomee wone sag naqarlu ko wala sa ñàkk ko rafetlu loola dee su ko def ci yàlla awil masaayiqi kiraami xalba aw xaalaban bal kun lahum muhibba wala ngay gaaral gaa yu baax yi sëriñ su baax sa nga di leen gaaral diw day baax na waaye te léeg-léeg kat la nga waaye du dara leeru la ca xamoo dara waaye sëriñ bi nee na soppal gaa yu baax yëpp soppal ñëpp moom bokk na ci wér wérdu tarixam ab sart bokk na ca sart ba mooy bëgg nit yàlla yëpp nit yàlla yëpp bëgg leen moo xam tariixa bu ñu bokk moo xam bokkuñu tarixa waaye nit kuy liggéey ci yàlla la bëggal te boo ko amee loo koy tere nga tere rek ko loolu mooy sart bi mhm. wa minhu lixtiyaaru wa tadbiru xalban maa arrahmani wa taqdiru borom bi subhanahu wa taala da nga koy bàyyeeg yëfam mu di la tànnal moo lay settantalal biir ak biti waaye yow bul tànnal yàlla dara wa minhu aydan iltifatun bi tama wal xawfi wa shakwa li xalqin in waqa bokk na ci ñaawuk teggin geesu mbindéef yi jamono bu nekk yaa ngay xool la gaa yi yor te xemmam caa am lool wala ngay ragal mbindéef yi loo ciy ragal luñ la mënal dara walla ngay bari njàmbat ci mbindéef bu jàmbat kenn ku dul yàlla yàlla rek a mën a faj aajo yi jàmbat ko ko bul ragal kenn kudul yàlla yàlla rek a mas a ragal ndax moo am doole te du tëlee du fàddu koo kii nag moo mat ragal waaye waajoo xam ni lu mu bari bari doole bis dina ñëw ab sëppeen man koo yendal fi barab bu ko neexee kooku xam nga amul doole kon boroom doole ji dul wàññi ku mooy yàlla ku kuy ragal koo kii nga war a ragal ragal leen koo kii wa min u yurafu tatabuu ruxas wa kullu tawilin faraisa alqasas bokk na ci ñaawuk teggin mu ni bul dafa bëgg ni bul geesu mbindeef yi ci li ñu yor déedéet bu ñu ñëwee ak bu la wanee ginnaaw yow demal ci yàlla rek waaye bul toppatoo yitam yu yomb yi ñu baree bari yu yomb yi leen gënal farata yi da nga gis koo xam mi du woor akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la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 الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة akbar laa ilaaha illallaah allahumma rabba aati daawata mutaali qaa'ima ati muhammadan wasilata wal fadilata والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود nee na toppatoo ruxas yi mooy yu yomb yi loolu it dañ koy tere ab taalibe yu yomb yi mooy farata yi yàlla digle doo ko def te buñ nee nangam day ku ko jàng am nangam nga daal di yuqeeku a tàmbali diglu ku def nangam am nangam mu daal di jege si waaye lii farata yàlla yoona yoonam néew ca sëriñ bi nee na loolu day gàllankoor nit bul topp yu yomb yomb yooyu minhu taatika mubaa niami lam tanwi taatan bihi lil munami bokk na ci gàllankoor nit jël yu dagani yàlla ci xéewalam yi xéewal yu bari yi mu andi te dagan lool nga di ko jëfandikoo te yéene woo ci topp yàlla doomu aadama yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ajaban li amril mu'min fa inna amral mu'min kulluhu xayr fa in asabathu darra'u fa sabar fa kaana xayran la wa in asabatu sarra'u fa sakar fa kaana xayran la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni man de yéemu naa ci mbirum jullit moom lépp baax bu ko yàlla tegeem nattu mu muñ ko yàlla bindal ko yiw bu ko joxee xiiwal mu sant ko yàlla bindal ko yiw kon moom jamono bu ne mën naa amul yiw kon doomu aadama daraam nguyaayul lu ci rek boo ko amee nanga nga ca yéene aw yiw boo amee xiiwalu wér yéene ciw yiw xiiwalu alal yéene ciw yiw xiiwalu xam-xam yéene ciw yiw lu ci nekk kon da ko am boole ci aw yiw weneen wula ci yàlla y dencal loolu daal mooy teggin yi nga xam ni bokk na ci teggin yi nga xam ni sëriñ bi baaxee nanu ko ngir doomu aadama melowoo melo yooyu boo ko defee rek doonu sang melo yi fi bind ku ko melowoo danga doon ab sang yal nañ ci yàlla xiir mu yomb lool ci nun ba lépp lu mu digle ñu def ko lu mu tere nu bàyyi ko fële loolu mooy njariñul te ak ëllëg